Euh, jaa ngeen jëf mbokk yi crème mélange pàccal la goo xam ni ñoo ngi ko defaree ak huile de fenugrec huile d'ackpi graine d'ackpi huile ackpi poudre kigelia huile d'olive qualité bio ak li nga xam ne moo di pëti cola lu ci nekk rekk daanaka rek euh, njariñ woo ca nekk yaatu lool muy graine d'ackpi bi xam ngeen huile ga ñuy génne ci moom foo ko diw fu ne gis sa bopp fenuc rek sekki bi muy sekki fu mu sekk fu ne wane boppam karité njariñ wi xam ngeen ko huile d'olive njariñam xam ngeen ko ak li nga xam ne moom lañ tuddee kigelia africana mbokk mi seetaan déglu paccal waa ngoog muy garab gu ñu defar ci anam yu sell woo te foo ko dóor fu ne gis ci sa bopp daagu gi rafet lool macha allah kon yow mi ñuy topp huile crème paccal gaa ngi 77 244 98 05 liggéey bi sell na rafet na te foo ko dóor fu ne gis sa bopp kon yow mi seetaan topp ñu 77 244 98 05